jërëjëf Africa 7 ah. waaw sur la première question nga ne ci fan la ñu wékk commune yëpp mën nañ ko gañe d'abord nee naa la fàttali naa la élection yi ñu def yëpp ak ndam yi nga xam ne yàlla may nañu ko jaarale ko ci senegal yi mais loolu aussi li ñu koy may mooy liggéey ak contrat bi nga xam ne jël nañ ko askan bi donc ñuy liggéey ñoom ñuy gis naan ñu lii ngeen di def doy nañu dolli leen mais su doon dama lay tontu rek politiquement dama la naan sur cinq cent cinquante sept collectivités territoriales Benno Bokk Yaakaar mi ngi ciy contrôler plus de cinq cent trente kon mën nañ jàpp ne suñu gënee yokk suñu taxawaay ci terrain politique bi war nañu am sañ-sañ ne suñu bëgg-bëgg mooy gañi lépp donte nag foog ñu mosal leen tuuti donc foog mu am benn wala ñaar bu ñu leen bàyyi kooku dinañ dinañ fexe nu ñu nu ñu ko defee ndax aussi gis nañ ne ci élection yi am na gox yoo xam ne dañ ñu fay daan kon loolu mooy àdduna beneen bi ci des mooy xam nga sànq wax naa ne boo demee ba seetlu ne sa stratégie yëpp da ko tegoon ci ne rek ndaw yi man lañu ñu àndal te élection du ci wax du ci jëf élection ci représentativité politique li ngay xamee nit ñi fu mu toll ak li mu am ci représentativité te représentativité élection moo koy may maanaam duñ la peese dañ lay wàññi benn ñaar ñett ba xam ñan lan nga am loolu nag pour bés ñu lay compter ñu xam ñaata nga am mais day am période yoo xam ne da ngay wàcc ci terrain di liggéey di wax loolu nag dañ ko def ñun bi ñuy jug di tey bi nit ñi naan primo votant yi man damay xaar ba période révision exceptionnelle bi ubbee ma door a wax samay ndaw dem leen boobu ñun suñuy ndaw nee nañ leen carte d'identité soxlawul xaar 18 ans dem leen mu wuti seen carte d'identité donc le processus électoral ak code électoral sénégalais li mu wax amul lenn loo xam ne dañ ko ci wàcc amul kon tey jàpp nañ ne ku jug ne dañuy bloqué ay nit ak jugleen ngeen xeex nu nous sommes des non violents lii tax ñu nekk ay non violents mooy dañu jàpp ni réew mi ñu ñëpp a ko bokk te dañu jàpp ni démocratie ça s'exprime à travers les urnes kon du ñu xeex du ñu bokk sante du ñu def massage tamit dañuy dem nekk ci terrain bi liggéey suñu foog naa ñaari question yooyu lañ ñu laaj jërëjëf